contre-signature am na waaye ci décret boo xam ne rapport de présentation bi ko indi te Aly Ngouille njaay signé ko lu dul dëgg ca ne waaye doo nekk ci conseil de ministres ki nga xam ne kii moom ngeen teg liggéey bi ne la nii la nga ne ko waxoo dëgg ndax moo yore lépp moo yore dossier yi moo yore lépp loolu le le gouvernement est collégial mm-hmm. moom lañ ko moom lañ ko ko dénk moom moom lañ ko dénk mu ñëw wax bu fekkee ne nag man de musuma ko dégg sax ci république bu Sénégal ah bii Sénégal di république ba tey musuma dégg ñu naan rapport de présentation boo xam ne duggal nañ ci lu dul dëgg intentionnellement dan laa ci mënoon a def bés bu ma xamee ne bu ma enquêté sama enquête ba noppi ba gis ne lii foo la ndekete ma dem porter plainte loolu laa mën partenant naa plainte bi ñetti signature la kii indi rapport bi ba ne méngoo naag suñu loi fekk méngoowul ak loi bi kooku di fen waaye loo ci mën moo yore dossier bi moo la ne <coughs> diw ak diw am nañu bii doole fekk dara boobu signature am na ci signature président de la république ndax décret décret présidentiel la du décret premier ministre contre signature premier ministre premier ministre ci kaw ndax mu munoo signer loo tout le conseil du gouver tout le gouvernement c'est pas possible mhm. c'est le chef du gouvernement le premier des le, le premier ministre mooy signer gouvernement yëpp mooy président yow de joxe nga ndigal nangu nañ ko dinañ ko topp dinañ ko doxal ñetti signature la man de bi ma gisee ne foo am na ci li ma jëkk def mooy bind président de la république ne ko jógal saytu lii ndax foo am na 2016 benn yoon ñaari yoon ñetti yoon musuma ci am tontu waxuma ko yow la de dama ko ne rek caaf xam na ci fii ndax am na am na ñu ñu njaaja ngi ci booba ñu ñu ngi ci deful dara nekk ci nekk ci nekk ci. bi yëf ci ne pël BBC am lu mu ci wax mbir mi doon scandale international moo tax it sànq ma doon wax ne scandale bi ëpp ci u Sénégal mooy bu Petrotim ñu daal di jóg ne dañuy enquête ñu gis itam ne enquête bi nga xam ne ubbi nañ ko yëfu caaxaan la moo taxit it ma ñaaw njort ci on va faire le contrat on va casser ou renégocier waxam moom jërëjëf dóor dóor. maa ci maa ngi ci maa ngi ci maa ngi ci xaw euh, ñaaw njort tuuti ndax fi fi mu jógee bi ñu gisee ne yoon boobu amul mucc mais dañu dem porter plainte foo xam ne mënuñu ko bañ ci yoon bu ñu tegee yëf yi ci yoon xam nga li ñu mujjee def jël dossier ba teg ca loxo. atta ngi nii doyen des juges suñu plainte pour faux usage de faux bu jëm ci décret boobu defagu ci dara looloo am ci Sénégal kon fi ma nekkoon démb foofu laa nekk tey ca foofu laay des bokkuma ànduma ci Papa Maktar kooku mm. nangoo de man bokkuma ak ñii de mm. ndax nag dangay ngay booy bo bo boo buggee am. idée nit da ngay xool itam démbam. mais mais mu amoon itam leneen loo xam ne euh, laaj nga ko kii dañ koy bàyyi kële duñ ko bàyyi len de dinaa la ko wax saa yu ñu munee jóg ñu jóg waaye scandale yi am fii ci.